man sama sa tey ji ña ngi koy màggalal Mbàkke sëñ Muudu Moustapha lañ ko tudde sama doom yu góor sëñ Muudu Moustapha noonu lu am rek noo ngi ci waa Taïf ak Bayla sëñ Muudu Moustapha yal na ko yàlla fayal iskay amin ak sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma sëñ Mbàkke soxna loo nun boo ñëwee suñ kër billaay ak waxtu wii boo nee sëñ Cheikh baa nga ne sëñ Mbàkke baa nga ne sëñ Muudu nit wuyu la suñu yëpp a ngi ci Taïf yal na mu yàlla fayal ñëpp tan fekk lépp te ko jërëjëf jëf jërëjëf jëf moom ni mu defoon bis aw jiwoom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 looloo taxin da nga bis bi suñu bis yéeme nu ko dara màggal bari na loolu waaye nag da nga màggal gi moom day suñu màggal te ñor na xom kon képp ku fi daje yàlla na yàlla faj say ajo yokk di wërsëg yi dafa suñu jàmm yàlla yàlla nangul ñu lépp waaw sëñ Mourou Moustapha nag liñ ci fàttaliku xanaa bariwul waaye nag ay déggandeem rek ah moom waxoon ne dégg nga moom sëñ bu mag bi waxoon na ko dégg nga am fi jógee nag ma yóbbu Touba ba mu ko digaalee moom wax na ko dinaa ko def bu soobee yàlla mu ne ko dégg waaw su ma ko defee ba su ko defee nag lan mooy foo ko defee lan mooy sëg tey lan nga defee mu laa lay mu ne ko bis boo xam ne bi yóbbu naa Touba bis bi ma lay màggal ku fa fanaan xëttina nga àdduna ak àllaaxira naan tey jile faw ma dem ngir ëm di laay sàkku mbégam lii lépp nag xam nga li tax daa yéene nit ku ne lu baax du jëf lu ñaaw du wax lu nëx du yàq kenn ngir siyaar si bisu màggal bi nekk nag taalibeeb seex sëriñ Moustapha Mbacke bis bi nag wax dëgg rafet na te nañ ci ñoo ngi ciy dàkku ñaan Cheikh Amadou Moustapha nag da doon kenn koo xam ne day jàmbaari lislaam sëñ Gaynde Fatma mi fi jaar mel ni moom sëriñ Mbacke soxna loo ñëw waaye nag sëñ Moustapha bi mu toogee daa mel ni daa taxaw seen taxawaay bu ñëwoon du jekkalaat dara kon ñoo ngi ñaan ci barkeb Cheikh mu sëñ Moustapha man maa ngi tudd a Sarr jógeen fu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Ndakaar Mbay jowetu gaa yi di taalib sëriñ Seex Mbay noo ngi ñaan daal màggal gi ngeen teew lu bare bari di gërëm rajo bi ak télé bi jërëjëf Seex Moustapha ci ak leeralu leen kii luy mbiram da nëbbu ak weeru ku nit ñi di ko xam au contraire da koo siggal Cees laa jóge ñëw màggal si ndax man waa Daaru Xuddoos laa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 ak jàpp lépp loo xam ni loo xam ne suñ tuwaanu jëm koo doxal mu jëm maanaa ca maanaam yaruta rek ak yar daal mooy lépp ak taalibe mooy lépp waaw waaw maa ngi maa ngi jógee suñ Tuubaa jaar suñ Fàllu jaar suñ Mudu di wéyal siyaare noonu su ma fi jógee maa ngi dem bu suñ suñ bi waaw incha allah waaw yàgg na nag parce que man Tuubaa laa dëkk daal damay dem ñëw rek man 25 ans maa ngi màggal naa leen ko yi kon ñoo ko gise woon ñoo ko gisandoo ni ñu leen ko waxee woon rek jëm ci li nga xam ne moo di màggalu Daaru Xuddoos di màggal gi nga xam ci lañu fàttaliku ñibbi si sëriñ bi fii ci Touba gis ngeen bi ñu egsee ci jumaa ji fi ñu tàmbalee ak yéen mooy lu jëm ci alxuraan ji sëriñ xaali jaxate yëkkati ay kàddu xam ne ne lu toll ci ñaar fukki nit juróom-ñett tànn nañ leen kenn ku ne jàng benn kaamil ñu koy amal ci bés bi nga xam ne ci lañ fàttaliku sëriñ Touba li ko waral nag mooy kenn ku ne xam ne ne sëriñ bi alxuraan la gën a fonk kon bésam lu ci am alxuraan moo ci jiitu ginnaaw loolu ànd nañ ak yéen ci ziar yi nga xam ne moo am ci barab yi di barabu Cheikh Modou Moustapha Mbacké da ngeen taalibe yi fenn fu ne lañ bàyyikoo ci biir ci bitim réew bis bi kenn ku ne bi nga egsee gis nga kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko muy kàddu yu mbégte ak kontante kon xam naa ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di yem foofu rek ba ñëwaat eggal li nga xam ne mu des ci liggéey bi fii ci jumaay Touba màggalug Daaru Xuddoos édition 2019 taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii tafa wér ga newoon ca Moustapha ko it ci mii itam Cheikh Moustapha la wax loola la nar moom lu mu la dig faye ko bar kenn mësu koo gis mu bangam